yi président Macky Sall faat boom am na si Modou Gueye nekk fële ca ginnaaw raay amoon na ci euh, Landing Camara Ziguinchor waaye itam am na si Ali Alpha Tunkara Alpha Tunkara bàyyee ko dindi felo bàyyee ko Kédougou donc bi ñu jógee HLM dañoo buggoon dem ci ñoom fi ñu dëkk étudiant Kédougou ngir jaale leen li nga xam ne ñun ñoo ko bokk muy alfa Tunkara waaye gis ngeen bi ñu dawee ba egsi lycée Kennedy fu muy jeexee ak euh, ñaari deux voies face ngay waaj a dem fële nga xam ne mooy place de la nation gis ngeen autopolice taxaw suñu kanam taxaw ba si yàgg mu bàyyi auto président si jàll mu bloqué ñu taxaw ba mu neex leen ñuy def auto ñuy dem ci auto dem euh, dem ci auto bu nekk di xool ku ci nekk di jël ay numéro plaque d'immatriculation moo tax may wax fii ci kam ci kaw ci ne lépp lu dal leader yi nga xam ne ñoo fi nekk président Macky Sall la lépp lu dal seen oto président Macky Sall la ndaxte xamuñu lan moo tax ñu doon benn bennal oto yi di jël plaque d'immatriculation di xool ku ci nekk ñoom ñu ngi sol ay kagul ñenn ci ñoom ñu ngi sol ay kagul waaw koo xam ne yow amoo fit jàkkaarloog nit looy jàkkaarloog nit looy jël plaque d'immatriculation donc nous mettons en garde le président Macky Sall lu dal leader yii mooma lu dal oto yii mooma te dootuñu nangu li nga xam ne moo daloon daam muy dawal otom ñu koy tiire di ko tiire ay bal duñ ko nangu et nous prenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale bii oto président Guirassy rombe ñu euh, euh, ñu bàyyi oto Yacine Fall ak defe naa oto Marème Sora jàll ñu bloké wat ñu bàyyi ñun suñu oto ñu jàll ñu bloqué waat li muy tekki mooy seen taxawaay moo nekkoon pour ñu tas cortège yaa ngi di fàttaliku amoon na fi meeting ak APES ñun ñëpp ak président Ousmane Sonko demoon fa ñu jóge ak APES ñu ñibbi ci VDN bi takk der yi fees dell ci VDN ñuy dagg cortège bi benn par benn pour bañ maanaam oto yi àndandoo donc dama bëgg askanu Sénégal xam li nga xam ne moo xew et lu ñu dal ñoom la ci jamono campagne la ñu nekk fekk conseil constitutionnel joxewul àtte ci recours bi nga xam ne député Yewwi Askan Wi Ayib mu ngi fii sama ginnaaw tonton Ayib fekk conseil constitutionnel joxul décision bi joxul dogalam ñu ngi ci campagne électorale donc ñun coalition Diomaye président euh, li ñu waxoon démb moom la ñu jëfee tey dañ leen waxoon ne dinañ wëyal campagne bi ba keroog conseil constitutionnel wax ndax askanu Sénégal moo am dëgg ci ne élection par la force dégg ngeen commerçant yi ci HLM nee nañ élection par la force nee nañ élection day am nee nañ kenn du randal élection loolu la askan wi bëgg c'est ça la profonde aspiration du peuple sénégalais loo ko wax leneen diversion la tey sax ñenn ci yéen ñu ngi may laaj ci yeneen tomb man ne leen xanaa déggu leen askanu Sénégal lu mu wax askanu Sénégal waxul benn baat bu dul élection par la force kon bu bu leen ñu laaj leneen askanu Sénégal dafa ne kenn du randal élection kon bu leen ñu laaj leneen parce que li askan wi bëgg la ñu war a wax te askan wi mooy ñun ñun ñooy askan wi ñun nee nañ élection par la force cinq 25 février day am élection coup d'état bi duñ ko nangu duñu nangu dem 15 décembre 2024 donc lii moo nekkoon euh, li ma bëggoon wax di gërëm waa HLM yëpp di gërëm euh, mes commerçants HLM yi euh, di wax étudiants yi nga xam ne mooy les étudiants de Kédougou yoon yemul ci benn police moo ñu tere tey ñu ñëw foofu waaye coalition Diomaye président du coalition bu ñuy xoxatal du coalition bu ñuy tiital du coalition buy dellu ginnaaw ndaxte dem jaale ay étudiants du crime du délit di wax